dama lay laaj yaa ngi doog a équipe nationale waaw mais daa mel ni maanaam sénégalais yi da dugg seen xol bi loolu lan la gom sama bopp rek waaw man xale bu ndaw laa gom sama bopp rek barke alquran karim lii dara bàyyi leen ba ma am combat aare na ngeen seetaan lii du dara bari mi la topp nii yéeg-yéeg la rek yéeg ak li ma dund ak ñooñ may nuy waale waa ñoom baara aw ma seen fay waa ñoom baara aw ma seen fay bu soppee ko jàmm di la delloo ziar bu baax baax di la ñaanal jàmm foogale séeréer non man du ma séeréer man soose laa soose ma soose lakkal masninkol mbe ɓe contona ɓaje ɓaje kadi we ɓe simani jara a anga fo ele duwa ele duwaje le quoi ye duwa la faɓe ɗeɓereje inchallah ok ndaysan catégorie 66 kilos final individuel sénégal niger Moussa Faye moo féete droite mooy sénégalais bi moom nag yàgg na équipe nationale Moussa Faye waaye yàgg na fa lool ça veut dire que kon ay mbiram teg na ko ci yoon solonte nañu dëbb sol Moussa sol na ko Bissau Guinée baa ngi koy mu ngi bañ Moussa nga ko bëgg a taf mboot mu bañ Moussa xaw nañ laa mboot foofu Moussa xaw nañ laa mboot foofu Bissau Guinée baa ngi koy bëgg a eh Moussa moytul takk nañ la de Moussa bañ na loolu waa moo gën a wóor daan na ko walla lu xew lu xew arbitre aaway ah Moussa daan na ko aaway ah Moussa Faye final individuel gañe na ki nga xam ne nii moo di doomu Guinée Bissau bi looloo am léegi ngor ñaaxay ñëw place bi moo ko jël Moussa Faye nekk noonu bi moo jël deux moo catégorie 66 kilos moo nekk noonu individuel Guinée Bissau Guinée Bissau moo jël moo jël deuxième. médaille de bronze 700 000 francs. 750 000 francs la ñu wax 750 000. Ndeysaan Moussa Faye mbër mu yàgg équipe nationale la ça veut dire que li muy liggéey teg na ko ci yoon moom Moussa Faye xam na ne Sénégal lay défendre Bira seen a koy jox moom li nga xam ne nii moom mooy médaille dooram waaw individuel Moussa fay ku am jom la ndaysaan Bira jox na ko président CNC bu Sénégal président CNC jox na ko Moussa fay deux mille cinq cent dollars deux mille cinq cent dollars ñaata la ci CFA Moussa fay ay kombaam yëpp da koo gagné Moussa Faye daa gagné ay kombaam yëpp ah. sa adversaire sax dama gis danga ko yëkkati rek jëm ak moom suuf waaw waaw sant yàlla sant yàlla euh, bon ñun moom li ma lay wax rek làmb amuñ si pression muy làmb Sénégal muy làmb fu mu mënti nekk amuñ si pression buñ duggee rek liñu li ñu war rek la ñuy def waaw ñaan yàlla may ñu dam yàlla may ñu dam yàlla na tam di Sénégal ñëpp quoi Ambroise lu mu la wax Ambroise <laughs> non lu bëri man lu bëri la ma wax Ngor ñaata ñaata yoon a ngi ni nga ñëw équipe nationale wala bii mooy bu njëkk deux fois ah deux fois deuxième fois ci bii waaw euh, mu mel ni sa catégorie ci équipe yi gagné nga foofu waaw gagné naa foofu uh-huh. waaw waaw par équipe bi non non dañ la fa gagné dañ maa kii par point quoi par point quoi. waaw ok mhm. léegi mu individuel yi. individuel waaw final kan la. maa ma Guinée foog naa Guinée la. Guinée la ah. waaw ñaax ba Sénégal rek. waa lii moom du fi ak CEDEAO bi ah déet waay loolu yoon de hymne national kenn du ko dagg bu ngeen ko bàyyi muy dem. loolu mooy bàkku réew mi ngóor ñaax boo xoolee troisième Niger la père ba booy jox waa Niger seen médaille catégorique 76 kilos mu mel ni moom 1000 dollars la am médaille de bronze bala gagné waaw waaw rëbb ca la boo jàppul ku jàpp may la fexe nga ba bokk ndeysaan Julio Armando de Guinée-Bissau moo jël deuxième place Julio Armando kooku Guinée-Bissau la jóge Julio Julio am na mille cinq cent dollars waa lii lan la mille cinq cent dollars la Julio gagné man de kii ëf hymne bii du ko bàyyi waaw ah DJ mi déggul ndigal de DJ tee ngaa dégg ndigal Julio moo jël médaille da d'or bi médaille d'or Ngor Ñaax Sénégal deux mille cinq cent dollars ah waaye loolu weccet la de loolu xaalis la de jox nañ ko médaille d'oram Ngor Ñaax a day jël kubam ngóor ñaax jël na médaille d'or ba de waaw ngóor def na loolu ngóor ñaax daal deux mille cinq cent dollars catégorie quatre-vingt-seize soixante-seize kilos ne seen Sénégal yëpp ñu jël waykati séréer yi waykatu olof yi tëggukatu séeréer tëggukatu olof jaxase leen Papa Ndiaye maa ngi lay ziar ndax yow moom kenn mënta wax làmb ci réew mi te boolewu la ci loolu la yàlla dogal. waaw Babacar ginnaaw ma sant yàlla jul Seydina Mohamed gërëm samay way jur gërëm sénégalais yëpp bu ñu nee CEDEAO ñu indi ko ci réew mi doomi mi ko ko bokk njoo njaago joola séeréer saraxule ñëpp ko bokk waaye nag yëf yi dafa féete boor waaw parce dafa am genre waykat yoo xam ne di bu ñu leen joxee micro yi ba ñuy way ci séeréer yi am na ñuy nangoo joxe mais am na ñoo xam ne dañuy bëgg a téye micro bi bañ ko jox waykat yi mel ni ñoom ñoo moom senegal te Sénégal ñëpp a ko bokk Sénégal ñun ñëpp a ko bokk buñ nee CEDEAO Sénégal yëpp la ñu wax bon ñun am nañ ci wàll looloo waral ñuy ñëw suñu teewaay yaa may dégg bon dañu war a jox ñëpp yamale leen ñëpp parce que ñëpp ay sénégalais lan njaago beek séeréer beeg bambara beeg saraxule bi ñëpp ay sénégalais lan waaw mais jël affaire bi ba koo lekk micro c'est très dangereux li nga bokk ak say nawle da nga leen coo dang koy bokk li nga bokkul ak say nawle bu boobaa nga jël ko mais li sénégalais yëpp bokk ku ne jox ko ca wàllam lam moom looy wax ci CEDEAO bi tey li may wax ci CEDEAO bi doon sénégalais rek bokk ci bu ne africain yëpp africain ndax ñoo nga ca barki dem ba tey ñu ngi fi waaye xam nga bu nu booleeg suñuy nawle nawle dafa tiis normalement bu nu wayee danoo war a jox ñu way waaye bu nu wayee kon leen abbee ñu bañ na du nu way te CEDEAO olof beeg séréer beeg manjaago beeg mandinka beeg joolaa ñëpp ci lañu bokk waaw bu nee CEDEAO rek africain lañu wax Afrique yëpp ci lañu bokk. rek comme ni ko sama mag yi waxee. day xam ne CBA bi ñun ñëpp ko bokk waykat olof beeg bu séeréer bi ñun ñëpp ay waykat lañu te nag sama nijaay Ibou Ndiaye Niokhobaye dafa am wax bu baax moom daan wax toog ba mu yàgg mu xool ñu ba mu yàgg mu ne yéen da ngeen di dundal làmb waaye dundee woo leen ko kon dañ koy dundal rek moo waral tey sunu teewaay di ñaan yàlla bis yàlla na egg jàmm ndax c'est le Sénégal rek. ak médailles yi médaille d'or yi médaille d'argent yi médaille de bronze yi foofu lañ koy teg. waa gis nga foofu ak xale yu yooyu taxaw waa gis nga ñooñu ñoo la koy jox ñoo koy teg ci loolu mel ne ay ngegenaay ñu ñëw ki la koy jox jox la ko voilà loolu mooy CEDEAO neuvième édition waa ndaysaan tournoi de lutte africaine CEDEAO organisation bi parfaite na macha allah nit ñi ñëw nañu tamit. mais alhamdulilah c'est l'occasion ñu sant ñëpp gërëm ñëpp bëri na si ñu si jàpp ku si nekk ñii ay xalaat ñii ay lii ñii ay lii. tout le peuple sénégalais était derrière son équipe nationale derrière son CNG ensemble moo indi réussite yi donc ñun ñëpp la ñuy sant ñëpp la ñuy gërëm mais surtout nag di def mention spéciale au bureau du CNG depuis pratiquement un mois defatuñu woon sax réunion de bureau tellement que benn point lañ doo discuter ci ordre du jour bi mooy nan la ñuy def ba tournoi CEDEAO bi am réussite te yàlla may nañu ndam alhamdulilah. macha allah am na ko mais léegi dama dugg ci biir woykatu olof yi jàpp na ñoom gisuñu seen bopp ci côté micro bi dañoo mel dañ leen cee xaw a xeex yéen yéen a jiite yow ginnaaw Bira Sène yow la ñuy wax ndax yow lañ toftal ci moom loolu loo ciy wax. waaw a ginnaaw loolu ginnaaw Bira Sène man lañ jiital mais lutte simple également dafa am borom muy président Manga 2 mais pourtant en réunion de bureau jëloon nañ lépp luy matuwaay pour wane lépp luy cosaan lépp luy aada Sénégal mais xam nga nag am na mbir yoo xam ne sur le plan organisationnel. depuis fi ñu nekk ñu ko gérer c'est à des détails près euh, c'est des choses yoo xam dañ koy rectifier parce que vraiment pour wax dëgg ñun jëloon nañ toutes les dispositions pour ñu génne lépp luy culture lépp luy aada lépp luy facetu Mbour euh, lépp luy facetu euh, Sénégal ñu génne ko li nga constaté nag on le constate et on le déplore. kontaan ci yow. mais alhamdulilah jërëjëf Babacar. waa ndeysaan yaa xool public bi noonu. sénégalais yi ñëw nañu wuyu si ah way ñëw nañu wuyu si tey gépp génn na ñëw supporter si seen équipe nationale ñoom booy fay yaa ngi reetaan looy reetaan. ziar naa la baa yaa ngi am jàmm. am nga jàmm. waa sant bu baax baax baax baax Babacar. tey mu mel ni par équipe gagné ngeen ko. booy fay loo yëg. waaw contentement rek parce que liggéey bi métti woon na lool ma ànd ci ak sama gars yi ak sunu papa Ambroise Sarr coach ak CNG bi yëpp métti woon na lool mais tey ji li ñu doon wut lépp sunu am na lu ñu ciy jox ni ñu ko bëggee jël par équipe jël individuel mais yàlla dogalu ko mais amaana ñàkk bi ñàkk nag waaw moonu may lu bëree bëri bëri bëri bëri ñi sant yàlla nag bu baax a baax. yow sa catégorie rek démb dañ la daan yaakaar naa wala. waaw dama ñàkk làmb ji. waaw par par sama catégorie parce que ni ñu wax noonu laa ñàkkee trois appels la ñu bañ dugal recours après gars yi accepté wul recours parce que nee nañ matal naa trois appels. mais booy fay booy bëre Sénégalais dañuy nekk ci pression. parce que dañ li ngay bàyyi daa bëri. non boo xoolee bi tournoi bi commencé tey booy fay ji ma xam ba koy jàpp di ko daan c'est da ngay bëre ay mbëri défensif xamante nañu quoi ñii dañu xaw booy bëreeg mbër bu défensif boo ko forcé mën nga surux def trois appuis dafa yomba am quoi mooy waral fa ñu téye suñu bopp. yow règlement bi ngay sóoraale quoi. voilà da ngay ak règlement parce que pour nga dafa facile quoi. c' est très facile trois appuis jël doo jàpp ngemb trois minutes mu jeex. mu mel ni yéen ak Niger saa bu ngeen di bëre day metti ah. dër bi la parce ñoom dañu commencé pratiquer lamb bu baax moo tax waaw dañu koy pratiquer ñoom ak yoon bi mujj bi ñoom bu baax a baax quoi. Uh-huh. Ah, tey maanaam ah, équipe nationale ku sol drapeau bi war loo war a loo war a wax ak sa peuple. waaw di wax rek naan leen kon daan nañ bu baax gis nañ ne gars yëpp ñëw nañ. waaw mooy li may wax rek ñun moom li may ne bu fekkee ne dañuy wut lu ñu war a marqué waat fi ne nii xanaa roi des la. parce que jël nañ de francophone jël nañ des africains jël nañ CEDEAO jël nañ tamit ah, chef de l' instant bi roi des moo ñu dese. roi moo moo dese ñaata sélection nga am yi bi moo nekk sama quatrième sélection. waaw sama quatrième sélection. kontaan ci yow. waaw bëgg yow waaw waaw. bi. jëlal. Nigéria daa dugaloon recours. eh way ndeysaan eh Sénégal Nigéria individuel la loolu Gandia Fama doomu bitante bi jël nañ ko oh Gandia sañaxal na ko Gandia ngi koy dàq oh eh waaw ndeysaan ci la bokk waaw waaw cey mbaya daw na jël ko mu bañ Nigéria tamit boo xoolee dañuy bëre eh waay 86 kilos gàñña faama ganja dina ko daan ganja langaamu na ko ganja war na ko da koy buddi ganja war na ko eh eh na ko da koy dawal da koy daan Nigéria bi bañ na ganja daan na ko eh faama waay toppal ma kii nee na ko kaay eh waaw waaw la faana bi ma ganja faama waaw waaw Manga 2 jëlal ni ndeysaan eh Manga 2 Ambroise Sarr père mais père kontaan sant bu baax a baax. lay wax lay wax sénégalais yi. Jokal Ndiaye. félicitations wax sénégalais yi. Eh. lay di leen sant yàlla bu baax a baax. mun naa wax ne lii c'est une première. équipe nationale amul kenn ci daanu kenn ci ñoom ci premier tour ñëpp dañu am victoire ñoom ay médailles encore ci biir sant yàlla la. Manga 2 Manga 2 jig na daa mel li simple bi. ma ne damay sant yàlla sant ñëpp sant le ministre des sports à travers son. ñu mën fi def dara kon nag te Makhtar Ba ministre bu ñu accompagner la mu ngi def lu nekk pour koy gërëm bu baax a baax. boo xoolee ndeysaan catégorie 86 kilos Niger moo jël troisième Nigeria deuxième Sénégal premier loolu moo am Pape Abdou Fall ak ak ak ak Gaston ñoo taxaw ne jëlal ma ñaar ñee ñaari promoteur yooyu waa kooku mooy Pape Abdou Fall moo sol blanc bi ak père Gaston ñoom ñoo leen war a jox seen ay trophée mu mel ni kon ñaar ñi tamit. ci wàllum làmb Sénégal am na lu bëri luñ fi def ndax ku ne xam na ne Pape Abdou mu ngi waajal le 5 décembre diggante Papa Sow Sita Gaston di waajal le 28 novembre waaw diggante Forza ak Pakala ndeysaan Pape Abdou Fall lay jox Nigéria bi Pape Abdou Fall ko koy jox Pape Abdou Fall jox na Nigéria médaille jël na photo da koy jox tamit xaalisam 1500 dollars Pape Abdou Fall def na loolu catégorie 66 ki 86 kilos ndeysaan médaille d'or ba lay jox Ansou Khady Ndour Gandia Fama Gaston nga koy jox médaille d'oram ndeysaan bu Ansou am nga lu rëy ak 2500 dollars 2500 dollars photo de famille Père Gaston Mbengue ak trophée bi ndaysaan Ansu Khady Ndour Gandia Fama Pape Abdou Fall ngongu taxaw Gaston ngongu taxaw Pape Abdou Fall joxe nañ trophée yi catégorie 100 kilos la Gambien bi moo féete à droite arbitre de am na lu muy tere ordinateur ñaari mbër yaa nga ca daw na jëli ko ordinateur gambien yi ay sénégalais la ñu de parce que Sénégal ak Gambie benn dëkk la ordinateur fi nga dugg mbaa baax na ci yow mbaa doo perdre sa ordinateur mbaɗo perse catégorie mbaɗo perse catégorie C'est vrai. degame naar koor ke teer wa alin saare ada selere me bira sende na munya kasil kana ya jae ada selere me bira sende na munya kasil kana ya jae monsieur le ministre des sports monsieur Matar Ba CEDEAO mu ngi nii tey Afrique de bi yëpp teew nañ fi yàlla dogal nga yor sport réew mi di ko doxal macha allah tey Sénégal presque li fi nekkoon ci ay médailles jël na ko waaye li am solo mooy Afrique bi ñëw wuyu si Sénégal tey loolu loo ciy wax en tant que ministre des sports. ci waxtu yi ñu am njiiti réew mboo xamante ne li mu gëm mooy Afrique dafa war a nekk benn pour dem ci kanam mu jox ñu ndigal ne ñu fi bugg a organiser nañ ubbi bunt yi parce que bu ñu Afrique soxla Sénégal day joxale ubbi ay buntoom période mbas lañ nekk. waaye terewul ñu jël tournoi de la CEDEAO di gërëm bu baax CNG ak ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp ba organiser ko d'une manière extraordinaire fii ci arène nationale bi. arène nationale bi nag képp ku jege mbër yi nga xam ne dañ jóge yeneen dëkk di nga fonk li nga am parce que ñoom daf leen jaaxal waaw ku am lu mel nii nag da nga cee war a jàngat mooy nañ ko téye bañ ko yàq téye ko parce que titre la pour Sénégal wane na ne njiiti sport soxal na ko surtout làmb ñu organiser ko bu baax ni ñu ko war a organiser ba pare nag participer gagné ko loolu nag defe naa ne mënuñoo def lu ko ëpp dañuy gërëm rek mbër yi di gërëm nag surtout amateurs yi ak sénégalais yi ñi nga xamante ne bëgg nañu làmb te complexé wuñu wane ne seen cosaan la ñu bëgg ko yàlla def na nag docteur Alioune Sarr mi nga xam ne moo yor lépp luy développement lutte traditionnelle ci monde bi ñu jox ko mu ñëw Afrique yore ko ci Afrique ñëw toog fii ci weti Bira mi nga xam ne moo ko remplacé defe naa ne Pape Abdou Fall toog Don King de l'arène toog di Gaston ñoom Jey production ñëpp ñëw toog defe naa ne lii mooy Sénégal te mbégte mi fi am noonu rek la ñu war a def sport day lëkkale parce que tournoi de la CEDEAO pour intégration la peuple yi dañu war a nekk benn joxante loxo moo tax sama naataango bi jóge Niger dinañ ko dem fekk Niger yóbbu ñi nga xam ñoo yore làmb Sénégal pour ñu dimbale leen parce que ñoom nee am nañ ay arène melul nii nag daanaka waaye benn yoon wala ñaari yoon la ñuy organiser ci at mi. kon Sénégal bi organiser dimanche ak samedi bu ne ak ci biir semaine bi ñoom daf leen jaaxal te bëgg nañu xam nan lañ koy defee moo tax ñu bëgg leen yóbbu waxtaan ak ñoom ci mois de décembre vers le 24 su ko defee bu soobee yàlla. dinañ leen jàppale ci lu mel noonu moom la ñuy tuba coopération sud sud. kontaan ci yow maa gën a bëgg ci vraiment. jaajëf jaajëf jiite. yàlla dogal nga organiser ci sa magistère docteur Alioune Sarr toog ni nekk ancien président mais lu bari ci Afrique ci wàllum làmb mu yor ko wala sax monde bi tey looy wax en tant que njiitul CNC. jërëjëf xanaa wax ne bég na ci ni ma entouré ñi ma dendal su ma fekkoog monsieur le ministre de sports Matar Ba gestu gis suñu grand monsieur le président de la euh, lutte africaine mondiale muy docteur Alioune Sarr. déjà loolu day dalal xel mu bëgg loolu nag ci sénégalais yi nga xam ne ñëw nañ ak ñu toog seen kër di seetaan télévision bi di delloo njukkal si waa CNG yëpp surtout suñu mbër yi nga xam ne ñoom ñoo gagné lii nii ak techniciens yi nga xam ne ñoo leen entraîné tàggat leen ba ñëw nii. donc suma première édition la ci CEDEAO en tant que président du CNG ma sant suñu borom te effectivement gërëm képp koo xam ne jàpp na ci. tey ñëw fii wala mu nekk këram wala mu nekk feneen yéen presse bi leen gërëm leen sant lii du guleet yàgg na et docteur Alioune Sarr ba mu yore CNG CEDEAO Sénégal ñi la doon comporté woo di gagné bi aussi jaar na buum jaana ci booy booy ba dana fa mu ne woon naroon nañu am gàcce bu nekkoon ne dolliwuñ ci lu fi nekk loolu mooy continuité am nañ médaille d'or bi champion CEDEAO am nañ yeneen ñeent médaille d'or catégorie donc loolu en individuel pardon donc loolu am na solo c'est pas rien xam nga Sénégal li ko jik li mu bëgg mooy gagner yàlla Sénégal yàgg di gagner gagner nañ tey ñu ngi waajal yeneen compétition mu nekk championnat d'Afrique loolu incha allah ni ñu waajale bii sam daañu ko gën a waajale boobu da nga xam ne ak li nga xam ne ministère sport mu ñu ci accompagner état dañu ko accompagner noonu ñu sollicité waat rek ñu gën ñoo accompagner loolu vraiment bëgg nañ ko te gërëm ñi nga xam ne promoteurs yi euh, managers yi entraîneurs yi ak école écoute yëpp ñu ngi leen gërëm leen sant seen teewaay ñoom it ku ci nekk jàpp nga ci ba xam ne fat bi fête bi mën a mel nii loolu am na solo lool te vraiment loolu lañ ci doon ut ndax làmb ñun ñëpp ko bokk suñu cosaan la suñu sport la ñëpp ci war a jàpp jërëjëf kontaan kontaan ci yéen merci. di la féliciter am merci maa ngi lay féliciter yéen presque parce que. ci réussite événement bi ñu ngi lay féliciter. président ñun devant le ministre. courage aussi yéen féliciter nañ leen wax dëgg yàlla waaw tur bi moo du Faye caam la waaw euh, président de Republic of Gambia Wrestling Association euh, comme ni nga ko waxee rek tey moom suñ tànn teewaay fii mooy ñëwoon indi suñ ay gaynde yi ñëwoon jongante si tey si CEDEAO tournoi CEDEAO bi waaye sante ko yàlla bu baax a baax a baax nag ndax àdduna moom nii rek la da ngaa uddi ji benn nga am bala nga ñaaka si yàlla defee nag nga ñaaka nga sante ko yàlla nga xam ne nag àdduna mooy doxee noonu waaye ba beneen jàngat la rek pour gën a yokkaat bu baax a baax a baax ndax am na lu bari le capitaine le buffle le capitaine 120 kilos. oui. tu combien de médailles. Euh, ça vaut 10 de inférieur. Oui. Équipe et puis individuelle, si sa totalité, ça, veut, ça Comment vivez le, drapeau CEDEAO ici, au Sénégal Comment vivez-vous cette stade ah l'arène nationale sénégalaise ah toutes les équipes comment vivez ça non nous aussi on s'est préparé venir bon on a fait classement avec Nigeria ça n'a pas on a été quatrième nous aussi on a gouré demi-finale avec Sénégal c'est Sénégal qui nous a battu oui. Ils ont battu Burkina Faso. OK, voilà. Eh, félicitations. Merci, merci. Et puis prochaine fois. Ouais, prochaine fois, j'aurai le médaille d'or, le Chialao, le bif du Naira, le bif du Burkina Faso. Ok, ok. Présélection bi mais yàlla dogal na mujul participer maanaam mujj ñu ko tànn maa ngi lay ziar. waaye maa ngi lay fay baat naka mu nag gis nga affaire bi noonu la demee yàlla moo ko dogalul rek waaye yàlla baax na quoi. mais man daaw bi ma lay fekk Gambie ci tournoi Fallou Ndiaye ba. boobu poids sa nga bindu woon mu mel ni diggante bi kon da ngaa liggéeyaat ba léegi poids lourd nga bokk ba ñu woon la ci plus de cent kilos yi ah. non daaw laa don poids lourd quoi bu mu jógee foofu rek laa appliqué de poids lourd compte na quoi yàlla di jàpp ci moom mu réussir quoi naka mu nag. noo gisee tournoi bi. waaw kontaan rek vraiment nice waaw. Mhm. xalaat nga ne sélection yi ñëw nga bokk ci. ah incha allah buñ ma wooyee moom ma ñëw man moom ragaluma loolu waaw. ah. simple bi yaa ngi ci ba tey. maa ci bu baax a baax a baax waaw. foo mujj a gagné tournoi. man dakaar Iba Mar semaine bii passée maa jël 2 millions waaw waaw. kon fekk kon beneen yoon rek. kontaan naa merci beaucoup. kon gars yi noonu la demee woon tey drapeau CEDEAO bi Sénégal mujj na ko remporte comme ni mu tàmmee amee loolu nag nekkul loo xam ne lu bees la yàgg am. à chaque instant bu ñu ko organisé Sénégal da koy jël même bu dee à l'étranger la sax Sénégal da koy jëli kon tey noonu la demee finale ci catégorie Sénégal a gagné individu euh, par équipe Sénégal a gagné mais nag di rafetlu lii parce que Afrique la woon c'est l'Afrique c'est dans nous dans nous c'est l'Afrique qui gagne kon di leen jox rendez-vous ci yeneen daje ak ay xeeti lamb moo xam dóor bala moo xam simple bala ba beneen yoon Fatika dewa mi ma desine matar ma